jiital ci sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Murtada mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi teg ci sëriñ Abdou Lahat moom sëriñ Abibu mi fi teewal sëriñ Abibu nuyu tamit sëñ Mamor Mbacke moom sëñ Mor bu sa jàng mi nga xam ne mooy kilifa ak lajnatu saqaafiya wa almiya bu Touba ca kanam ak sëriñ Saliou Jaxate di sant yàlla bu baax a baax ci jataay bi. ginnaaw bi nga xamee ne Touba ca kanam ci ak yaatalam ànd koog borom xam-xam yi fi teew jot nañu ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér ci ñu taxawal kër goo xam ne dafay dajale di saytu ak a séddale azaka ñu duppee ko kër azaka yi ànd ceeg boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi teew ñu dëppoo ci jiital ci sëriñ Saliou Mbacké moom sëriñ Mourtada Euh, ginnaaw bi ci sëriñ Mountakha joxe ndigal nag borom xam-xam yi daje nañ ak waatu Touba kanam def ci ay liggéey yu am am solo ci nosin wi ak taxawalin wi loolu nag tax na euh, ñu sàkk ñetti banqaas yoo xam ne jàpp nañ ne ñooy taawu kër gi ngir li ci sëñ bi bëgg ñu amee ko ci nañ ko bëggee bi ci njëkk mooy li ñu wax majlisul a'la te mooy conseil supérieur kuréel goo xam ne dañuy tànn ci ñi ci mënta ñàkk ci wet googu ñu dajale leen ca ñu tiim liggéey bi ak kuréel goo xam ne moom la ñu wax hay'a shar'iyya te mooy xëy na mooy conseil juridique gis-gisub l'islam gis-gisub yoonu lislaam ci kër gu mel nii ci mbirum euh, dajale ak séddale asaka amat geneen kër goo xam ne mooy idaaratam mooy administration bi tey nag ñu tase ñu tase fii ngir samp kuréel gi ci ëpp solo ñu koy wax xëy xëy a charia te mooy ñi nga xam ne ñoo war a xool ak xal yoon yi nga xam ne moom la lislaam santaane ñu war caa jaare ngir def liggéey bu mel nii ndax niñ ko xamee asaka farata la ci bépp jullit bu ko man jullit bi naka lay xama ne mën na ko xam-xama koy xam-xama ko koy wax naka naka lay xamee ne ginnaaw bi mu ko manee naka la koy génnee xam-xama ko koy wax ginnaaw bi mu ko génnee ba noppi naka la koy joxe xam-xama ko koy wax te xeeti xam-xam yooyu nga xam ne euh, jullit bi mënu koo ñàkk ngir matal farata jooju ko suñ borom teg moom la xëy a charge bii ñuy samp tey euh, fas yéene taxawee ci biir kër gi ñuy woowee kër azaka yi ci Touba ca kanam. Euh, Touba ca kanam yàlla def na ci aw doxinam ci jëmale dëkk bi ca kanam. dem na ba ci biir ab liggéey daal koy dab ay nit jàpp ne war na war nañuy jël lenn ci seen asaka di ko jox ca cosaanu tàmbalikaayu liggéey bi mu xam ne lool it wëtu woon na ak liggéeyam mu àggee ko sëriñ bi sëriñ bi it jox ko ndigal ci mu taxawal kërug asaka goo xam ne joxe ndigal sax ñu taxawal kërug asaka goo xam ne da koy dénk Touba ca kanam li tollu ci at ak genn jàpp ñaari at ci genn wàll Touba kanam bi mu ci yàlla def biñ àggee ci loolu ñu daal di sibile nag mbooleem boroom xam-xam yi nekk ci dëkk bi daal di xool ne tuubaa lu mel ne al asar nga xam ne euh, ginnaaw école guvernement bi moo fi ëpp doole ci école yi diine yi nekk ci réew mi faw ñu dem kilifa yi nga xam ne dañoo nekk fu mel noonu euh, euh, fu mel ne it rawdu rayaxiin nga xam ne bu buñ ma doon wax majlisul ala ci murid gi dañuy wax ne ñoom la faw yi ñu dem mu ñu dem fu mel noonu dem fu mel ne daarul moxti sëñ abdourahman ci Touba it ñu dem ci jàngalekat yi daara yu mag yi sëñ aas jaxate dem nañ ci sëriñ eh, xaadim mbay kër sëñ abibu daal dem ci daara yu mag yi cosaan yu ci bari dem ci suñu kilifay borom xam-xam yi nga xam ne ñëpp xam nañ leen ci li ëpp ci seen i service muy nekk loo xam ne yoonu murit ñëpp cee bénéfice ci ñoom ñu dem ci ñoom ñu wax ñu ku nekk la nga ñu wax ñu boole ko def ab rapport indiwaat ko ci Touba ci kanam Eh, haya saraniya boobu nag mi ngi nekk ci njiital sëriñ Saalixu Mbàkke moom sëriñ Mahamadul Murtada ñëpp xam nañ jéego yi nga xam ne sëriñ Mahamadul Murtada doon na ko def ci làcc woowu ba tax kilifa yu bari rafetlu ne moom mooy nekk kilifa gi ba tey it jiite ndam ndaam gi nga xam ne niwaa na ku ci mën a mucc ci ñun sëriñ Mbàkke Abdourahman nekk vice président ci nekk ki kii ñu toftal ci moom biñ ko kilifalee ba pare nekk na ci it membre sëriñ Seexuna Abdul Wadood di secrétaire général Rawdu Rayaahin ba tey eh, ak eh, alustaas sëriñ Xaadim Mbay di ñi ñi gën a tasaare njàngum diina yaakaar naa ci eh, ci ay audio yooyu ba tey nekk na ca membre docteur Xaadim Silla moom it di ñu ñu ku ñëpp xam bokk na ci alxaaji fallu bu sa Xasan moom it di directeur Alassar Bale ñëpp xam di borom xam-xam mag ci dëkk bi bokk na ci sëriñ Basiiru Xelkom moom it di ku ñëpp xam yaakaar naa ci làcc wi eh, bokk na ci it sëriñ Moustapha Diop Ndar docteur moom it bokk ci ñu yore woon commission scientifique bu alxuraan bi ci liggéeyam sëñ sëñ sëñ Muntaxa bees bi bokk na ci it sëriñ Sam Bousso di coordinateur di borom xam mag ci yoonu murit liggéey bi it mu am ci taxawaay yu rëy yoo xam ne ñëpp xam nañ ko bokk na ci it sëriñ Xaafiye Ñang di borom xam-xam bu mag di marjian ba tey ci yoon wi ci yu bëree bari bokk na ci it oustaz sëriñ di Moxtaar Ka moom it ñëpp xam ko ci laaj yi bokk na ci sëriñ Muntaxa Jatara moom it eh, nekk nekkoon inspecteur ci njàngaleem département bi ñëpp xam ko ci bokk na ci it sëriñ Xabbaan Mbakke moom sëriñ Mouhamadou Mourtada moom nag dafa am ngànt la wax waxtu wi da koo fekk ci ab tukki woote na daal joxe ndànk ngàntam bokk na ci it docteur eh, sëriñ Abdoul Ahad Sané ba léegi ñu biseegut woote na moom daal di joxe ngànt bokk na ci it sëriñ Ahmadou Mbakke Daarul Moxti di borom xam-xam bu mag di conférencier bu ñëpp xam ba tey bokk na ci it euh, sëriñ Souleymane Badiane di faqih moom it di jàngale ci majalis ak yooyu ba tey di membre ci commission scientifique et culturelle bokk na ci it sëriñ Mamor euh, Mbacke moom sëriñ moor Bousso Dieng jiite commission scientifique et culturelle di président administrateur bi biñ dénkandi Touba ci kanam administration biñ dénkandi Touba ca kanam di président bi bokk na ci it euh, Salihu Jaxate doon coordina doon liggéey bi Euh, bokk na ci it docteur Serigne Cheikhouna Mbacké mi di ki ñu borom xam-xam yi it proposé ci administrateur bi doxal liggéey bi ca ñu war a féete ca mm, permanence ba ñuy am bokk na ci it Serigne Mamour Amdi di secrétaire bu euh, kër asaka yi fi ñuy liggéey waaw euh, fa ñuy liggéeyee di kër bérub liggéeyukaay boo xam ne membre yi rek fa war a nekk président ngir nag luy gaaw a liggéey ba fay ba fay nekk. Euh, lu mel ne président Touba ci kanam dana fa nekk di yër liggéey bi ngir di xool lu fay jógee mu xam ne lii fa la jógee ba ko koy woo nekkul ne da koy tànqal waaye liggéey bu jàmp la boo xam ne bu bu jàmp bu koy fay xaar kon ñii ñooy membre yi xëy euh, euh, saran bi bu ma bu ma juumut Sëñ Sidi Mokhtar Ka ak docteur Abdou Ahad Sané ak Serigne Xaban ak Souleymane Badiane ñooñu ñooy ñi am ngànt tey ci teewaay ku ci nekk woote na wax sa ngànt tax teew li li tax teewoo di nuyu borom xam-xam yi fi nekk yépp di wax sunu mbégte moo xam ne am nañ ko ci lii tey lii nga xam ne tey moom ngeen taxawal muy lu am solo ndax kon nag xam na ne lii dafa bokk ci liggéey ci wàllu social loolu nag dëgg la ci yoon wi daan am ñun ñi daanañ ndimbal ma mos fee jóg waaye nag nos ko ba xilaafa gi di ko def moom loolu mën nañ ne lu bees la bi ñu xoolee ñu ngi ko seqal tax na mu woyof ci ñun ndax xam nañ ne borom xam yi dëkk bi yëpp ñu ngi ci biir mbooloo mi te seq mën nañ ne kuñ ca teg ci bopp moom dañ la caa waaye xam nga ne dana woyof ci yow tooy kon ñu ngi sant bu baax a baax di ñaan di nga xam ne nii yéen a ngi koy sos mu jëm kanam ma yaakaar na kon ni ma ko waxee rek xëy na euh, baytimaal moo gën a yaatu lii waaye damay ragal ne lii ab jéego rek bu jëm ca loola ñu ñaan rek mbooleem lépp lépp loo xam wekk nañ ko ci yàlla may ñu ko ci ñu ci ndam gis nañ li ngeen doxagoon ni mu demee moo tax lépp lu sosu te tegu seen mbag rek mën nañ caa rafet njort kon daal ñu ngi ñaan yàlla rek mu defal ñu tawfeex ci liggéey bi jërë ngeen jëf wajalilaahi maskani tubabat misrak mi abijaayi xayri manabat